man président leher, xaar dama am imam da musikis a gis ben naib bu taxaw jël kaddu tari ben sar, te imamam djumut maa ngi sama ginaaw imam sama imam Macky Sall la donc man sama kaddu jotugul amaguma kaddu xam ngeen ne waxaguma bobu tay te bu joté dina wax man kuy jël responsabilité la mais dafa jotugul bu joté non mais dama am imam nee len ci walu julli da mës gis naib djog taxaw ci kanam imamam jëlaat saar la politique comment être décidé par mon chef ka Macky Sall ku c'est pas une bonne question Fallel ça ah non là. waay <laughs> man aw ma choix man aw choix